give me my money démb laa xam nga démb laa def laay yi xam nga fàtte xaju nakati dem ma dem tribunal fekk tribunal dem liggéeyewuñu mais xam nga man na samay pexe rek ñëpp laa xam ne dëkk barki yooyu te sama jëkkër laa woo nekk bébé mu ne gis ngeen kii dafa bëgg yàq sama liggéey Karim ne ma mais pourquoi tu te donnes tant de mal ah tu veux pas attendre rek tu n'as pas besoin de vendre ma ne ko eh je te dis une chose même si je suis et que tu es un multimillionnaire mon travail c'est mon travail et tu m'as connu avec mon travail demain soo ma takkoon mu nekk président sax damay jaay sama jaay gi non commerçant la sama baay commerçant la waaw bu ma kenn war yàq sama direct bi samay juróom-ñaari maam commerçant lañ man awma complexé du ma nekk jabaru président lu tuuti la mais ki li may wooyee nii waaw nekk toog gi toog gi man duma ko def parce que nii nii macha allah namu ma dara. je ne manque de rien du soo gisee may xëy c'est pour ne pas avoir stress c'est pour ne pas être stressé c'est pour ça que je quitte chez moi je vais travailler donc même si tu as ma moi man kay tu ne m'as pas dans la rue xamuloo ma si mbedd fekk loo ma may yelwaan nag maa fekk ma liggéey tere sans bopp soo ma takkee yaa may dégg dugal ma ci pale bi damay jaay ci biir palais bi palais bi laa def transformé def ko boutique. bàkk yonent bi lii laa ko mu ne ma non il faut avoir de la classe ma ne ko la classe commence par se respecter soi-même et gagner à la de son front wax gi nag bu bari bërigee mbax gi wax gi nag bu jëmee kaw bu jëmee kaw nga ko bi lañ ko xam nga duma ko yónnee message du ma ko yónnee lettre maa dagg sama billet samay passeport ngi nii pare naa ko dagg samay billet ne ko nag xam nga lu ma la yëgal ah lan la. tu as déjà mangé taalal ma clim bi utul loo def gis nga wax gën su ma bëree duma la woo la message duma la message di la harcelé duma la woo di la di di di clamé damay dagg sama billet incha allah duma fi sax tabaskee fekk la ba Dubaï waxala looy tàkk ni midi sag sama conteneur romb la yi daa ko wax xam ngeen nga coow gi ma fu mu jóge conteneur kii eh, affaire yi ubbi ñu war a dem enjoy ambiance mu naan la ay fukkaat ci vent man ko xam nga lu mu la yëgal tax nag waa réew mi duñ la jox seen réew ndax yow déggoo olof déggoo tubaab jàppoo bàyyiwoo ma lay arranger ngay déranger. wooteel tribunal kii Thaïlande bi jox ma samay sëfa ma ma defar samay pur client yi di jënd hmm? ma ko waxee loolu ne xam dafa ragal bàkk yéen tamit maa ko menacé lu rëy lool. capturé leen ko ngeen yox wax leen lu leen neex site internet yi journaliste yi fi ne chaque jour ngeen woo ma maa ngi nii jàkkaarloo di wax ak yéen defuma interview tey defuma interview suba ñëwuma seen télé invité ku ma invité du ma dem waaw du lu leen lu leen loo leen bëgg ngeen loo bëgg wax leen bëgg. tabaski. c'est pas encore la tabaski li ma sol nii maa seen sa kase sa yaay nii la wala xamoo loolu. c'est pas encore la tabaski dafa jar a mel. tu as préparé parce que il commence à me pomper les pompes. yaa ngi dégg journaliste yi yéen laay waxal interview ma tey interview ma suba lijjanti wu ma leen bu leen ma lijjanti Karim maa ko fi wax bu leen neexee ngeen ne Nabou Dash tàkkal Karim tàkkale ko tey tàkkale wu ma ko suba sama xol la fii laa ko def. waaye nag je ne suis pas d'accord nag qui veulent m'empêcher de travailler ah chérie doxal ma chérie pourquoi vous m'empêchez de travailler je vais travailler jusqu'à la Maison Blanche jusqu'à la Palais National dans le palais les clients viennent dans le palais ma sañ lu rëy jaay leen teral leen ndax garde corps yi nekk palais amuñu benn liggéey lu taxaw si gàddu corps bi lu ñuy garder sax bu ñu xëyee taxaw ñu rek mel ni ay chaperon rouge su ma fa ñëwee garde corps am liggéey ay livreur laa leen di soppi garde corps yi ce sont des livreurs dama leen soppi ay livreur ñuy livrer client yi ñu ni ñëw si man ñu ràcc yow li dëgg la kontaan naa j'ai vu que les frontières ont ouvert ont réouvert waaw kay vol yaa ngi def nii bientôt rek incha allah man moom j'en suis sûr et certain du ma fi tabaskee su ma génnee xar yi ma war a génnee ndax maa leen ko waxoon dama koy def balaa ngeen may teesanti fi jàpp ma ne moo waxoon gisulu xar xam nga gis ngeen mbasin gisu leen xar dinaa fexe incha allah fii ak aaju ma ma génnee xar yi samedi ma def sama joogin nekk Emirates xam nga Emirates first class da am connection mun naa nekk live ci biir avion parce que ñoom seen avion dañu am internet dañoo am xaalis nag macha allah naar di leen defaral live boo du Dubaay su ma wàccee Dubaay nag mu fi ma vidéo leen loxo Karim bi ak xaaj xam nga xàmmee ngeen boppam bi xaaj bopp bi rek laa leen di photo vidéo nag di leen vidéo nag ni ma gënee or yëpp mun daal yéen daal dinaa leen wan lépp Karim waaw kay après le confinement la réconciliation après la réconciliation projetisation concrétisation développement mondial a Madame Wade kan na bu lay doon na bu yi Chéri Petit Lo Veyde yi Chéri Petit Lo ok del ma woowee nag na bu Veyde yi na bu Veyde yi Chéri Petit Lo ngay am foofu dara xewut ok xanaa ah, neex na damay jaay xar waaye yow euh, Mamadou Soumaré contacté ma comme ça mu gën ma ko ci yow sax lépp benn la daa j'ai besoin de WhatsApp ay sama numéro WhatsApp xaaleel ma laaj ko Karim ndax moom may wuyul téléphone <laughs> di euh, dangay jaay or ah jaay ma or de jaayaguma or waaye xam naa ne man ni may takkee or nii ci jaay or laay mujj jaayaguma or. ma préparé waale dem liggéey ndax bu ma leen toppee duma dem. ba Precia ba kontaan ngeen publicité naa leen seen Precia bi de. contrat bi ma yaakaar ba leen ko annulé fu ma jëm. maa ngi dem liggéey. loolu daal laa bëggoon wax lu leen bëgg mën nañ koo lijjanti mais saaga xuloo ak xeex moom baaxul saaga xuloo xeex baaxul lu leen bëgg lijjanti ko mais nañ bàyyi saagante xuloo ak xeex bi ndax ñun doomu baadoole bu bu bu xeex jibee ñun ñooy ñàkk te kuñ ci gaañ ba ne ma hôpital doon la faj xanaa nga toog sa kaw noppal say waju noppal sa bopp ak say doom du dëgg maa ngi dem nànk liggéey ba fàttewu ma dara nga dugg génnaan moom baaxul ma wan leen sama yére bi après ma door a dem Nabou Valdé yi eh jigéen day oddu sër Nabou Valdé yi bàkk leen dara xewut maa ngi nii di dem liggéey daal xewut may dem liggéeyi doomu de tabaski bi de xam naa ne moom ma fi fekk incha allah bu neexee yàlla <laughs> mu yóbbaale sama petit mouton yóbbu damay rey sama xar fi yóbbu yóbbu côtelette yi ko defal ko supp yàpp xar bu tàkk supp yel bu soof defal ko ay fois gras defal ko côtelette di ko ko sexal mu koy lekk tu kontaan tey daal damaa kontaan euh, Elisabeth kaay ma la oui je pars attends moi j'arrive salaamaaleykum Ndiaye ça ah ñoo ko amin amin Ndiaye oui xaar mu am lu ma jox kii ngeen ma topp ba Elizabeth am ceeb bu weex de